que nangam ak nangam ak nangam ak sangam ndax manager moo gën a jege artiste si loo mënti gis gis nga à part Nabou Leye manager bi mooy deuxième personne bi gën a jege Aziz Aziz lu mu dugg suba ba ngoon manager bi moo la ko mën a wax te amul keneen ku la ko mën a confirmer ku dul manager bi. aussi di la vérité yow na nga doonee manager artiste ñu jàpp rey nday nit rey nday sa artiste yow ki nga xam ne moo la doon dundal ci kawam nga doon dundee si si si si barkeem moom nga doon fajee say soxla ci barkeem moom nga doon dundalee seen waa kër nga ne piit noppi. mais sacrifice la wala lan ndax am loo xam dafa louche. gars yi use leen seen moyen utiliser leen seen xel. zou mbay sekk moom moom mbay. xam nga lan mooy problème bi. dañoo yëpp waa ginnaaw man nuyu ma sax nuyu ma maa ngi leen di ziar. gis nga maa ngi leen di ziar nuyu ma sax ambassadeur. zou waaw. maanaam maanaam tension fu mu toll dootal dootal dootay nuyoo da siif. xam nga lan mooy problème bi moom moom moom fi mu taxaw nii fii fi ambassadeur taxaw moo nekkoon place am ambassadeur yow xamoo Aziz dëkkoo sunu koñ fréquenté wooñu wax dëgg fa yàlla noonu lay du si taxulee dina ko mën a taxawee dégg moom laay wax gis nga nit boo amul looy ragal wala looy daw fi ambassadeur taxaw tey jii place ñu bëri la woon ci Aziz ñun moo tax ñun amuñu luñu leen war a wax billahi wallahi yow li ma la wax man ma ngi gis ben vidéo ben vidéo Maguette sek bo xam tane mu ngi ne xom ban soirée sol ab kiwom bofu nek fofu foofu xoolal na Aziz bu yagg ñun ñepp a yagg na xoolal xoolal fàtte nañ ko bu yagg la leen wax Modou Ba nak mo wara wut yatam bu reuy taxaw seen buntu kër kep ku ko Aziz lebal teranga nga war fa ñew mu door la ba nga teud amul kenn ku ci taxaw di ci wax amul kenn ku ci taxawat di ci waxat pour mi leer yéen a ngi may dégg maanaam ñoom si boppam ñoom ñoom si boppam xam nañ xam nañ ñu demee de mais dañoo tëj seen gémmiñ nopp bañ a wax lu leex laa leen wax. bii mooy presque bii mooy troisième meurtre bañu. waaw ginnaaw raay la ñu waaw lu si des. bi la set la foire bi day ubbi day ubbi période boobu. Samba dina eh, nena fraise parena no ko jëli léegi ay partenaires yi yore patin ñu yóbbu ñu yóbbu sa foire ba fu nekk si Sénégal ñu yóbbu fa kuy nëbbatu bu si justice bi taxawee di nga feeñ incha allahu rabi. loolu maman maman Hélène hmm. wax ji mu àndal liggéey patin yi. waaw salaamaaleykum. di nuyu. di jéggalu comme maa ci yoon damaa xaar ba soxna. dëgg la dëgg la dëgg la. maa ngi leen di nuyu gor yàlla le médiateur Betty euh, Sira Mawo euh, Bara ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñu nekk fii ci kaw mais ak Zouzou maa ngi lay nuyu ah euh, li Zou wax foofu lay rebondir parce que xam nga manager maanaam moom moo mooy ki nga xam ne moo nekk kiy jokkalante entre artiste bi ak lépp loo xam ne da koy signé ak lépp lu muy def kon nag kooku ñun boobu ba léegi sax dégguñu ko te yoon la nag tey ñu dégg ko hmm? Euh, li ñu naan nag tokk-tokk gën yu reet lii ñu ngi ko doon xaar xam nga dañoo nekkoon rek di junju di junju waaye junj bi nag dafa war a jeex parce que dañu nekk ci ligne droite bi.

dafa jot pour ñu wax ko euh, fi ma nekk nag dafa bëri bruit waaye live bi moom dinaa duggaat ci kanam di leen jaajëfal yéen ñëpp merci beaucoup au revoir. jërëjëf eh, léegi ok ah. léegi léegi gars yi ah. waaw. xale bu jigéen bi keroog laajte na benn sama benn xarit bu dëkk seen wetu kër kër yaayam. waaw na ñëw na fu keroog ci xaaju guddi. ñëw na kër yaayam xaaju guddi loolu koo confirmeel na ma ko uh-huh. waaw ndax dama doon dégg ñu naan mi ngi Touba mi ngi Touba ma woo kooku nga xamante ne moom ak yaayam ñoo bokk benn appartement mu ne ma ñëw na fi keroog ci xaaju guddi ngi fay dem nekk fi mi ndax moom mënul génn Dakar ndax bracelet bi ñu ko takkal ci tànk bi uh-huh. mais ñëw na kër yaayam semaine bee passé kër yaayam moom loolu moom see confirmé uh-huh. ambassadeur may ñu may ñu rek parti Aziz bi pas sax affaire xale ya saal beex yooyu may ñu parti passeport bi ba fin bi ma gars yi xalaat leen bu baax ok xalaat leen bu baax ngeen ngeen ngeen xalaat yàlla gën a sant sa bopp teer loolu fu may dimbali quoi leen gars yi Aziz waxee ko nii waxee ko nii waxee ko nii dëgg la am nañ scénario mais dañ koy gën a gonfler ma ci baax Alioune Ndiaye du la ñu ngi koy ñu ngi koy nuyuwaat encore une fois mais mais Aziz Aziz wéet nga. waaw. Aziz wéet nga trop. waaw da ciy baax restez chez vous lañ wax. non waxuma wéet boobu de. mais Aziz nga. Aziz wéet nga trop fan yi. ah wéet ci lan kon. laay ananas. récupéré sa doom yëpp gën la xam aar ëpp la xaalis jël sa doom yëpp yóbbu leen ci saalam yow nga toog wéet. ndeysaan. kookoy Moussa Jibi Ndiaye Baba Jibi Ndiaye. kookoy kookoy borom risi moom risi rek la am na loolu moo ci jaaxal. waaw moom kañ la dem ci yeneen dëkk nii fi mu nii wax yi ngay wax. wa wa wax yi. dégg da waroon demaat risi sax. yore doo dem. du ma dem kay. dàq nañ la jël say doom. mais léegi loolu loolu yëpp bi lu ko waral léegi li waxaatum post nga ne laaj naa dafa jël samay doom. waaw mais parce que gis nañ fi euh, ki nga xamante ni mooy Balla. gis nañ fi Nabou Nana gis nañ fi nday xadi mais ñom ñëpp anañu ah, ñangi anañu ah, fa lañ nek ñangi ci salu euh, yow day xeyna da ngay wax ni rek pour pour pour ñi nga xamantene ci internet bi lañ nek rek mais yow sax yu nga sama estate xam nga ne maag sama doom barki dem mon jaar ndogu mu neex lañ mujjee ndogu wax deug yalla mais li nga wax sank nak da fay jar di leeral parce que xam nga tamit say say waxul deug ma yak na xel musse Jibi Ndiaye baba Jibi Ndiaye laa ananas dama koy tooññi rek mais sama xarit la dama koy nuyu bu baax Siri Ayna borom Norvège laa ananas jurul sama ben dom bàyyi ma daay bàyyi ma développé la jurul kenn parce que ñooñu sama meññeef lañ sama œuvre lañ ñoon yalla ma bol ak ñom bo ba may gëm bu Aziz Dabala am ba tey kii ñëw mooy li ma waxoon sama interview be passé rek dem nañu ri risi ñew nañ bi joggé ri risi tak am ñaari contrat bi ma taxaw moy bima xam maa naan la avant ma dem ri dañ ma doon wo ci VIP sañse léegi ma ñëwul si wa seen TV woowaat ma parce que seen TV ma ma ma waa ma maxu mo mo mo ndeyloo jabaru Aliou Ndiaye ne ko këls lañ soxla ci émission ràcc déggoo ma de këls lañ soxla ci émission ràcc mu ne ko këls mu ngi risi maxu envoyé message ma ñibbi Sénégal ñu waxtaan ma def ñaar sama xol sama contrat en VIP santé bi ma koy signé bi ma fa jógee laa dem euh, seen TV signé ñoom contrat émission ràcc avant ma cee ak dara na ma ci waxtaan ak monsieur djibi ndjay ñu akra da nga nawu daa am beneen vase bi nga waroon dem de te buguma jël ay contrat wu jambu di jëna Sénégal day tek ma ci côte ma xam mu ma bul ci ben dañuy dem ma déggaat ndigal de te contrat yi laal ma ci ben signé gu ma mu voyagé ñu mu voyagé damay bref quoi pour mu gaaw damay bref parce que buguma jël sama temps yépp ci mom parce que lolu passé na mais il faut ñu xaw di léral des fois pour ñu xam ne Aziz Dabala moom waaw ci digg bi lay jaar quoi. mu voyage bi mu voyagé may nekkaat ak Kumba Gawlo di liggéey Kumba Gawlo ba waa Kumba Gawlo di ma laaj sama passeport. may leen foofu tuuti àggu àggu àbbiti yaa ngi may xam nga xam nga xam-xam Aziz fii dafa dafa nekk si Kumba Gawlo ah xoolal laay baat wala ak koo met laa yaa ngi may dégg ci live bi nii de yaa ngi may dégg bu baax xam li may wax nii moo tax ma la koy wax nii lay lii da koo ak koo met xam ne Aziz demee si Kumba Gaw la nii dafa dafa kii dafa dem dem dem ci moom di pour fecc pour fecce ko lay noonu la koo métti action bi lay du koo métti torop too ko laaj du la gën a mét daanaka lii moom a gën a met nii Aziz demee si Kumba Gaw la gën a mét. waaw pour ñu xam ne Aziz Dabala moom. waaw ah, ci digg bi lay ya jaar quoi mu voyage bi mu voyagé kumbagolo. nekkat ak Kumba Gawlo di liggéey Kumba ma laaj sama passeport ma woo ko téléphone ma woo ko téléphone na ko monsieur Jibi Ndiaye baba Jibi Ndiaye sama xarit ah warna an. ah Kumba kumbagolo yang Kumba sama sama sama paspor. de ñu mm. ngi sama paspor. waaw boole ma kenn nag mu jox ma comme yaa ngi Norvège googu noonu nga problem. ma tay ëllëg suba ngon tay ëllëg suba ngon ba voyage bobu nonu ya ma gëna xam bokuma ci quoi ya ngi deg legi taxul ma may la ko quoi mais ma limay ñor moy amna ci benn repère parce que li lay won ni passeport yow ya ko war sa bop lolu jangat la suma ma won sama passeport tay ji duma ci son téye nako voyage bobu passé na grawul mu jox ma sama passeport bobu bare merema ma. ci ci xam nga yow nag da sañ wax Aziz. waaw ma sañ wax mi dëgg laa wax. waaw lan moo mu mere la ko. jox ma sama passeport ba ma Aziz jinne ne Aziz dama laa jënd na passeport dem loolu li la xam la biñ tabaskee daaw laa leex nii de biñ tabaskee ba pare noonu ba ñu waaj tabaskee la woon dañoo maa ngi su ma Sénégal waaw su ma Sénégal dem ndàngam ak ndàngam Aziz jinne woo ma ne joxuma ko sama passeport li dal sama passeport bi pii voyage bi ak ak Kumba Gawlo mu ne ma moom passeport mom moko ko bopam lan la nam suñu passeport yi ya. la lan la nam suñu passeport mais jël passeport yi téye ko non rek ah voyage léegi kooku ame amee di lam war a jéem ci kër aduna nañu waxanti waxante dëgg takkat bi makoy oh, wo mo may de nan ma wa Aziz di tey nga déposé benen passeport nangam ak nangam nga am ñaari passeport mëna a ki tamit kan la yàpp ya, ñaari passeport naka ko koy ci Sénégal njaay gi mu rëy dama waa wax nga dëgg de wax nga dëgg passeport mu ñaari passeport mënut a nekk léegi boole maag nit kooku dama sama passeport mu ñëw woo ma ci liggéeyam ba pare woo samay doom naan leen seen biddéew feeñ na seen bid dégg ngeen ah ngeen foofu passeport mu ñaari passeport mënut a nekk léegi boole maag nit kooku dama sama passeport mu ñëw woo ma ci liggéeyam ba pare woo samay doom naan leen seen biddéew feeñ na sen bidew feeñ leg ngeen dem di wax ay wax quoi ci mhm. mag ci pa ci ko xamantene ne mu dee non nañu ma ko déglu ma rek parce que amna lo xamantene xamante ne nga ko def ce jeune ci yalla balla mais pa bu toy nonu di influencer boy di def ay affaire mais boy ko nangu aussi tamit. wa wa am nañ am nañu naa masa boy sax duñu ay nit parce que buñu idon doon ay nit ba nga fa joggé dañ fay joggé parce que ta la nga don xex pour groupe bi la man la na la jottu ba bu mu la di ndax nak mat na mar guddoon kuma dingin ngeen fini, man xam nañ ko yow bang fa jugge bang fa jugge la fa sa boy waroon na jinne la fa sa boy waroon la sa boy dañ fa waroon a jugee ñoom muy Balla Ndiaye mena te pourtant Aziz Aziz dafa laa miin ah, li mu waxtaan ak Balla Ndiaye Balla Ndiaye yegg da ko yegg ak lay ananas fa jël audio yi transfer ko lay ananas ni ko diglu Aziz. waaw léegi kon Balla naa féq bi. Balla dëgg dëggante boobu Bala jaxase digënté bi ambassadeur waaw kay saytaane baangi nonu ki jël ay audio jàmbur mu wax ak yow japp né xaritam nga nga ne dang ko tuddé dom mu lay ngay di jël audio di ko jokkee né kokoy saytaane bi baara mayma ma baara may ma kooku bi koko tal tal bi tal bi bu také Balla Ndiaye momoko tal ndax Aziz lam doon nar ak lam doon fexé japp né xaritam la mu diko kassal moom Balla warul woon a jël audio yi di ko jox Laye Ananas. Mhm. ba Laye Ananas naan retiré leen ko ci groupe beeg yemale leen ko fii. voilà. loolu na leer. na ko génnee na ko la si la si la gars yi si la gars yi si la gars yi génnee si la gars yi génnee génnee kii génnee génnee génnee génne waaye la gars yi génne si groupe koo génne groupe ba jox Balla Ndiaye saal bi kon Balla moom lu mu doon. léegi léegi laay léegi laay léegi laay bu ñu ko génne. après après ñoom dinañ comprendre. xaaral rek ne dinañ comprendre après si la laay si la daal di waxee daal ni même Aziz même Aziz mii sax interview bii nii mu def fii nii merci Khady muy mu def fii nii si si si ji nii laay noonu la ko méttee laay taxal wax ko daal ni interview bi Aziz def noonu la ma méttee dem di yàq sama der du ma dóor ci kaw askan bi. door ci kaw askan bi ban askan lañ ko dóor. yaa fekk fekk Balla Ndiaye Balla Ndiaye Balla Ndiaye moo jaar ci suuf expliqué ko expliqué ko expliqué ko expliqué ko ko lay aranaas ni ko Aziz day dem Aziz xamal wax ko lu mu waxoon yëppam ni si la si la ko si la laay écarté. ma bu ñëwee si saa xam xaritam boobu ñu waxu ne mi tëj gémmiñam Balla Ndiaye mi ko tuddee doom waroon a porté xeex bii. waroon a porté combat bii déglu rek déglul ma ñëw rek ak yow. ki waroon no porter combat bi tay moy kiko tuddé dom ki né dako bëgg mom Balla Ndiaye mom li Samba Nguer di def fi Samba Nguer taxaw Balla Ndiaye fa waroon taxaw ndax nak bo xolé nit ba jël ay jikkoom am lu toll ni dom romb sa bay romb say mbokk tuddé ko sa xarit kon xarit gi dang ko wara matal mhm. koko jay Aziz ndax alalu aduna ndax tukki nan wax li na wax ji leer li olof yi nan bu kenn gërëm ki taal taal bi ki taxani toog koo waral coow li mooy Balla Ndiaye ndax nan la sax xarit di waxtaan ak yow di la xeexal ndax xaalis buñ la laaj pour tukki sa la yëpp tukki Aziz wax ko plein live ñëpp di ko dégg mu ne laay ananas dafa yóbbu jabaram wàcc fi Balla Ndiaye Aziz mat na de Aziz mii dafa mat na mat li mu doon xam nga ne ñi ko xeex ñi ko def lii dañ koo ginnaawu waaye bu leen nandoon tuuti duñ ko bett dan ko bet nak, ta ki ko bett ci xaritam biko tuddé dom la jaar mu xaritam ko bet muy Balla Njaay deug la lu nabu lay def ci Balla Njaay la ko jangé waw kay ngeen bal ma nak ma ngi ñëwaat ma ngi ni na tek di tej sama micro di déglu non nañ ma ko déglu ma rek parce que am na loo xamante ne mu nga ko def ci jeunesse yalla baal la mais pas bu tay nonou di influence boy di def ay affaire mais ya, boy ko nangu aussi tamit waaw waaw am nañ am nañu naa masa boy sax duñu ay nit parce que bu bangga ay nit ba nga fa jógee lañ fay jógee parce que tam la nga doon xeex pour groupe la man laa naa jotee baag bu mu dara ndax nag lañ fay xeex pour groupe ba la est ce que est ce que comprendre ngeen lañ fay samba ñuy xeex samba dem ba dem yobul ko lay ananas ñu ni ko ah dégg la ambassadeur di wax ambassadeur ma ngi lay yak ambassadeur nek fam la tollu ambassadeur buggu ambassadeur bu sañon nga torox ba par di kat si ambassadeur na ko no ambass sama waji ki ambassadeur ki sama waji fek fekk gass suuf moo gën a nit ku bax ma leen wax lolou nonu Balla Ndiaye nit ku baax eggal ci la gros mot dëmm la laa wax dëmm koy def nit. fekkoon man may famille waa kër Aziz Dabala. ma ni dañuy dem ba kër Balla Ndiaye ni ko. ki nga eh. tuddee woon doom. ki nga tuddee woon ci panel ngay waxee ci la gros mot dëmm la. yaa ngi dëmm la ko keneen bi nga tuddee ko keneen seen doom jooju wut leen keneen ko ko leen ko tuddeewaat. teñ dëmm la dëmm la dëmm. seeñu na Aziz muucu na ko bàyyi ko mu dem. mu ngi noonu dëmm la. kuma ma liggéey rek may fayal moom kese laa doon liggéey fay mo deur musuma fay la rek la ko doon defal. doo ma bàyyi barke mi bàyyi ma waay. waay bàyyi ma bàyyi ma am na loo xam kenn duko wax ci tele la da yama gëna xam may yow xam nga Aziz tabala man kuma ma liggéey liggéey naa say say nit gis nga ma man man kuma ma liggéey rek may fay bëgg gi ma bëggoon lay tax na man lijjantiwuma dara am. Mm-hmm. parce que dafa ñew Sénégal imposé fecckat kat Sénégal yi né dañ leen exploiter looloo nekk comme premier dialogue am ak discours am moom exploité bi naka moom moo exploité nit ñi ne am na compte am naa ay voyage dañuy répété dans trois mois dem mu répété loolu trois ans demuñu Mali gi te laaj ñu ko kañ ñuy dem non day leer trois ans lañ ko liggéeyal xuma quatre ans musuñu ko ne lay kañ ñuy dem ñañ hmm. fa fekkoon nekk ay nitam moom ay nitam ñañ fa fekkoon nekk ay nitam ñepp ko bax ñafa voyage indi wo ñafa bàyyi mak samay dom goré barki sayidina mohammed di ko lig nekkatuñ say dom doom yi non non non non non samay dom lañ parce que tay ji li ngay seetaan ni kan li xama yagul te li fekk na problème bi am li ngay seetaan ci télé bi nii samay dom lañ mais daal di ji nit boo dul gëm sa bop wala boo dul boo dul boo dul boo jëlee sa yaakaar teg ko ci dom aadama jaay yàlla lay bàyyi ak doomu aadama jaay kooku noonu la teg si tamit wax ma ne ko sama samay def sama signé sama contrat wu en VIP sañ ceeg yooyu ko def parce que dañuy loolu moom ci soxor la boole wala bokk lu mu bokk moom loolu mais imaginer ko xool imaginer tey jii ba ma defoon contrat VIP sañ ak contrat wu euh, seen TV ràcc fan laay dundee jaw ak corona bii lay ananas rëcc naa la oh monsieur Djibi Ndiaye li nga naroon xam maa jaxase waa Sénégal tamit bëggoon maa jaxase Pa Moussa Sonko bëggoon maa jaxase ëmb dinaa ma dàq ñu ma fecc ñoo ma dàq fecc téeméer ju noonu ñooñu et intercontinental ndax fi mu daf la musa wax naan la ay ñi dàq ñu la fecc ñoom damay jaxase ak ñoom parce que def émission ba tay di gërëm mag ñi mënu bu ma leen gërëm ah bon mais boobu maa ngi ci biir maa ngi naan maa ngi naan kii li mu ne moom mooy jaxase maa ñëpp ma def ci moom mooy torturer loolu la bëggoon def te góob ma de mais heureusement man dama ñor dama yàgg ànd ak artiste yi su ma gërëmee Paa mënul tama koy gërëm su ma gërëmee Amadou Badiane papa mënoo ñu ñëw jàpp maa fecc ñu lég warna dama na voyage ma ngi ñoom ñoo tolloo niveau ma ne ko non non Pa Moussa Sonko kontam fess na dal Amadou Badiane kontam fess na dell Yéli iya tun kontam fess na dell ñoo bu ma tëkkal ak ñooñu mukk ba ma ànd ak yow voyage da nga dama ñu la tubab dina liggéey lu nit te duko fay. non mais lolu grave c'est grave. ba paré nga nar a àndaat ak mm, eh, ma la sank nee risque da waron na amat waye man ñu mënon dem dañ koy xolaat ndax bu nekké dem tukki ñew do yor dërëm moo tax ñu naan tukki ma toog fi di jël samay salaire moom moo gënal dafa ne kenn fayu ko monsieur Djibi Ndiaye wax lii ne kenn fayu ko tubaab dina liggéeyaloon di jël xam nga risque fu mu trois avion ngay jël. da ngay toog ba muuti. trois avions ngay toog nga jóge toog trois avions ñu fay la cinquante mille kenn ku si nekk cinquante mille trois avions ngeen toog dem ba ñëw ñu fay leen kenn ku si nekk cinquante mille. baax na. pour yéen ñi xamoo pour yéen ñi xamoo ñoom ñoom contrat ba ñu demoon di si. Aziz dañ kaa jëlaat pour mu dellu defaat contrat lii mais jotul dem jotul dem léegi moom Aziz bu àndoon ak groupe am mu fekk moom firi bi day yàqule Europe. Mhm. bépp affaire bu am Europe Aziz la ñuy woo ak groupe am. Mhm. ba ñu doon préparer dem ba Samba wax na ko fi ba mu ne ko yow est-ce que doo yóbbaale kii ak kii mu ne ko xalaatuma woon sax loolu. Mhm. mais wax nga dëgg. donc Aziz dañoo yëg ne si signé ne contrat mu ngi waaj a dem ñoo xam ne bu demee képp ka daal jot contrat boobu. moom du amati contrat du jarati dara si euro parce que dootul mhm. liggéeyati. Mhm. mais am na ñoo xam ne boo leen naree yàqal sa seen suuf su da xaalis dañ lay éliminer. talaay talaay talaay talaay talaay mënatul indi mënatul indi kenn ci turam turu jabar ji la mën di indi nit ñi mais moom mënatul indi kenn ci turu jabar ji la mën indi nit ñi c'est ça. ma jaxase artistes yu mag yi nag. mais mais loolu. imagine ma jaxasoo na Pa Moussa Sonko li ma wax moo ko doon jëfee heure bi moom mu baay ba fan laa jëm fan jëm. c'est man musuma ko ba pare ni discours quoi di discours naan ke du jigéen ñi dañ leen wara a ñu góon te la ananas japp mu na jaxal jappalul kenn mais jappalul kenn dama koy wax man dara wu ma maa ngi fayeeku samay salaire mais deug lay wax. jappalul kenn boko ko taxi teg si ki ne am voyage dans 3 mois ñeu Sénégal def kastinam édition ñep ñëpp ñëw. sax dégg nga liggéeyal ko 4 mu 4 4 3 ans et demi kooku bu la waralee adna adna da nga war a war àddina parce ko wor ngor. déggoo ma de te ba muy ñëw Sénégal gii indiwaalewul dara. yorul dërëm. mais jàppalewul kenn boo ko waxee Aziz daf may jaaxal parce que jàppalewul kenn say doom ñu ngi si moom say doom def choix déglu ma rek jàppalewul kenn say doom def def def seen choix resté ci moom bàyyi la yow mm-hmm. loolu boo waxee jàppalewul kenn. daf xëy na ñoom xëy na ñoom loolu lokk na seen bët. Mm-hmm. xëy na Aziz Dabala leen demee gisaguñu preuve te pourtant war nañ mën a preuve ah. parce que tay ji gannaaw yalla fu mu mënta taxaw sen tank rek man la. mais est ce que yang len di chompal est ce que deg ngeen yéen xaar leen ndax Aziz dabla fu mu len di jeme déglu nañ Aziz Dabala fa mu len di jëmee gisaguñ fa preuve. hmm est ce que est ce que est ce. que non non xaar leen. indiwaat ko. quatre quatre trois ans et demi kooku bu la waralee adina adina da nga da nga war adina parce que da ko war ngor. déggoo ma de te ba muy ñëw Sénégal gii indiwaale wul dara yorul dërëm. mais jàppalewul kenn boo ko waxee Aziz daf may jaaxal parce que jàppalewul kenn say doom ñu ngi si moom say doom def choix déglu ma rek jàppalewul kenn say doom def def def seen choix resté ci moom bàyyi la yow loolu boo waxee jàppalewul kenn daf may jaaxal xëy na ñoom xëy ñoom loolu lokk na seen bët xëy na Dabala fi leen demee gisuguñu preuve te pourtant war nañ mën a am ay ah. Pas que tey ji gannaaw yàlla fu ñu mënta taxaw seen tànk rek man la. mais est ce que leen di jompal. non ma xool ñoom laaj leen yow suñuy xuloo maag yow lan lay xuloo dama naan samay samay booy fay leen leen yow liggéey nañ liggéey nañ ci ay événement événement lan lay jooyal fay leen man parce que man nga Aziz Dabala kese ma la jëlal ma ci diw parce que man kasse man fecc fecc ba mais damay bëgg mu yaatu. jëlal diw dugalal diw digalu diw. est-ce que nekku ko loolu tax Aziz Aziz formé beneen groupe yaa may dégg pour jéem a xam ne carrément contrat dafa war a jéem mu ne ñii lay yóbbu ah mu xam ne ay ñoom Maguette Seck ak ay ñoom Nabou Leye ñoom ñëpp kenn bokku ci yaa may dégg sa xalaat dama dama analyser rek nag de déglu leen ma rek dama analyser rek ñu xam ne lii nii bu demee du leen arranger ñoom. ñu bum ñu bum Aziz ak Waly ñu toog neutre ñoom. noonu la demee ah. noonu la demee noonu la demee. ok ok. yéen yow liggéey nañ liggéey nañ ci effectivement effectivement lan laa lay jooyal samay doom fay leen booy yi. Mhm. ku ma samay doom a tax ma ñoom mais du man parce que man mat des fois nga engagé Aziz Dabala kese man la jëlal dolli ma ci kii diw parce que man kasse mën naa fecce wecc bari mais damay bëgg mu yaatu jëlal diw dugalal diw digalal diw clip ba ma ko joxee groupe la lay imposer xam nga groupe dafa cher groupe bi lay imposer nga am li fa cher man mo wañi wala des fois sama jël kasse bo xamantane ne 5 personnes la moy indi ci 10 personnes ndax bëgg boy di mos ñom xam nañ loolu c'est comprendre mais monsieur Djibi Ndiaye li mu bëggoon du bako ko may xam nga du bako ko may tay ji lolou mu def tay joon mu jël ben Balla nday ki nga xam mo mu tuddé dom dégg goma de ki mu tuddé dom la jël ni jox ko nee na bi te nan ko <laughs> non bu bisa jibi jaay ya graw ci mak no affaire bu graw nan boy fecc ke di sen biddew feeñ na te no di wax affaire graw muy ex ci mak ba bu baax Balla nday kañ dem ci guddi mais man buma yob dama encaisser mais dama encaissé booy. nee dem ci guddi la déggante ak Balla nday Balla de moo defal lay ananas sur le plat Aziz Balla moom moo jël waxi Aziz ak la Aziz doon def ak projet mag lépp tegal ko lay ananas ñu àndandoo da kompaloo ko def ko liñ ko def mhm. ñoom ñooñu ñoo gën a war a génn wax Balla Ndiaye tànkam yu dëng yooyu mel ni tànki tànki nu mu tuddati si ndax ne laaj ci laaj caaral mu ne aar la noonu daa mën a fecc man am na fu ma ko gisee woon di toog naan moo dàqa fee ci assis ak tànkam yu tasaar yu rinki yu ràcc yooyu tànk yee ràccu ne mbaxalu Saalum. da ngaa war a taf sa photo Balla Ndiaye taf ko taf ko moom Balla Ndiaye moomu après nga taf Mbaye Seck seen photo ngay leen ràcc fii. ñëpp xam ni ñii la ñuy waxal taf parce que am na ñu leen xamul taf leen. da leen di taf dañ war a weer dañ leen weer dañ siiwal leen taf leen. bon wàcceel Assis mi nga taf ñooñu. Assis wax na lépp. Balla Ndiaye ngi nii kay Balla Ndiaye ngi nii kay. leeg ménagère bi ki ki yoroon affaire Aziz da nga leen di coller ràcc di teg leen fii ci taabalu yaa ngoone ji lu waaye am génne ko rik ko ci kaw taabal ji parce que nag fa lan toll nan waxante dëgg xeex xeex la rek comme ñoom def nañ seeni pexe ba génn ñu ni nan def suñuy pexe rek ba dëgg gi leer li ñuy bonta yées Balla Ndiaye moomu di xaritam tuddee Aziz doom moo jël waxi Aziz jox ko Laye Ananas Laye takku ba dëgër ne nag kon lii Aziz nar duma ko fi seetaanee mu koy def mu mu mu mu ànd ak nit def ko musiba ñoo bon ñoo sew ñoo yées waaye billaahi danoo xamul ne Aziz dem na am leen bootee woon ni la leen boote ci ginnaawam noonu la leen di noonu la yóbboo seen bayra ñoom fu mun ne mën a yëg fekk ñu fekk leen faaki xeer doomeraam yi li ni yées waaw maaw man problème bi man sax pour man sax du ananas xam nga problème bi ñan la. Mhm. problème bi Mbaye Seck la Naboulaye la euh, ak ki tudde Aziz Doom. ñett ñooñu. parce que ñoom bu lay ananas amee accès ci Aziz Dabala. ak Maguette Seck ak Maguette Seck. ak Maguette Seck parce que Maguette Seck moo tuxuloo Aziz Dabala moo moo ko utal kër googu. mu dëkk ñooñu la. ba mu génn fi mu dëkkoon. ñeenti ñii la. lay ananas mooy cinquième bi mais ñii ñooy ñii ñii. ñii ñooy ñii ñooy lay ananas leen jiite mooy seen baay. moo tax mooy seen baay mais lay lay ananas leen lem ba ñu war a mën a def def ju ñaaw ji kon lay ananas dëgg la ci la bokk mais priorité bi mooy Nabou Leye Mbaye Seck euh, euh, euh, ki tudde Aziz doom ak ak ak kii nu mu tuddati am na keneen quatre personnes la. Maguette Seck. Maguette Seck. ñeent ñi ku leen jàpp jàpp raykatu nit ku leen bàyyi bàyyi kay bàyyi raykatu nit. ñeent ñii ñoo raylu Aziz dama ñi ñii barke laa ilaha illallah dañ leen di jàpp ñoom ñëpp. affaire bi jeex na xoolal gàllaaju leen def leen lu nekk dañ leen di jàpp. dinañ leen jàpp de ñoom ñëpp ci xam dara. ñëpp dañ leen di jàpp. ñoom ñëpp dinañ dinañ. wax nii ne miix ko war na seeni jëkkër ne muut muutaaral ne duñ génn. màgge sikk ne ko war na jëkkëram ne welaxle. dañoo xam ñu noppi. noppi ah. nag moom tegul fenn dañoo war a mën a génn wax. yéen leen di waxloo sax gis nga ñoom ñooñu ngeen di leen di leen cité ñoom ñëpp ñi ngi ci suuf di leen dégg ñi ngi ci suuf bi leen dégg panel bi ba ma yeewoo ba tey 9 heures. salaamaaleykum eh, xoolal live baa ci fi mu ne un million et quelque. déggoo ma de xaw ma un million xaw ma fi ne ñoom ñëpp a ngi ci suuf bëf ku ne déglu li lay wax. Eh, luy problème bi na ko gis nga live bi kaay baal leen ma baal leen ma baal leen ma baal leen ma tey live bi bu nekkoon privé ñu ne live bi privé la ambassadeur tey boo ko defoon privé tey nga gis ay numéro yoo xamante ne nii doo ci gis tur yuy jënd live bi ndax toog déglu rek. nga aj ñu ñun waxkatu bal yi fii ñu war koo arranger sa live da nga koy jaay ba mu jeex tàkk ndax dañ koy jënd ñoom bëgg na noo xam lu xew ay mbabbalan ay xaj lan ay kuti lan defkatu lu ñaaw lan waxkatu lu ñaaw lan déggoo ma de aar bi ci boppam ñi ci ne ñoo bon ñoom ñëpp xam nan lan la ndax bu fekkee ne ñëpp xam nan ñi ci des protéger lan tan war a génn wax pour lan dun génn wax lu tax dun génn wax pour pourquoi noppi eh! ray bi du yoon noppi bi du dëgg. teguñu ko fenn lay ananas moomu moom yaakaar naa moom moom moom saf na moom moom ku sap sap la moo yey tuddee si noom lay ananas. eh lay jeng la tudd Ablaye Jeng su xam noonu lañ koy tuddee Ablaye Jeng. am na loo xam ne duma ko basé wu ci mindeef. ah kooku santul Jeng kay du def loolu. yow xoola xam nga lan la yow yow ma ma ma la xaw ma xaw ma masaar xaw ma eh, yow bàyyi ma waaye man damaa mer de. bala ma lay song non santale ko ko kay nan ko santale nenen jang la sant lan nga bëgg mu sant ko tam sant ko mo nga dëkk ci tax xeen xawma fa ko rewul de ñi sant jeng kay gore kon yow yow yow xol bul ma togn nak mom ablay jeng la tuba jaral ko li lay ananas lay ananas ba ko mu ñew senegal nan dafa tang ak fii mënu fe nek la ni waaye mu ne ràcc noonu waa baara baara baara baara baara ah? gis nga laay hmm? ni mu toogee ne ràcc nag ubbi dënnam nag ne faalax ne jigéen waaw da toog ci mataabu ko ci ah? dara fekk ko ci moo ma jaaxal de man mais dara fekk ko ci kenn yéen kenn yàbbul maam Matar génnul kenn génnul ah, jaaxal na ma ci ñoom kon xew ñu génn fi ne jamra jot na nag pour ñu génn ndax bakkan moom dara gënu koo foor ñu tër ñaari bakkan waa jamra tëj seeni gémmiñ ah comme ñoo doon xangaar man ni soo bis bi li ci ne nan ko wax. Euh, maman Maw fàttali ko fàttalil fàttalil mars bi samedi la set. la set am na ci solo. am na ci solo. na ñëpp génn na ñëpp taxaw surtout waa Pikine ndax nag ñun ñi dëkk Pikine suñuy doom dong la ñuy faat ñu def ko bulletin zéro ñëpp di muñ na ñëpp génn na ñëpp génn bala Ndiaye tànkam yu las yooyu nag moom nan ko jëli mu wax lu leer moog Mbaye Seck. mbalaay seytaane bi nag ndax moo doon jël ay audio Aziz di ko yónnee lay ananas ay waay dëkk bi lakk na laa ilaaha illaa anta nag ñuy takk di naan maman maman li ma si jaaxal li ma si jaaxal ah, ah, ah, xoolal waa dik wuy ma xaaral xaaral am na lu ngeen fàtte de waa dik fu ñu woowee ya yaayu Aziz di ko di ko waroon nañ fa woo yaayu Nabou Leye nañu waxante dëgg ah yaayu Nabou Leye waroon nañ ko woo jëlu ko xool fi yéen waa dig laa wax de yéen waa police nationale Sénégal fu ngeen woo yaay di ko diglu waroon ngeen faa woo yaay Ndeye diglu ko damay wàcce. waaw waaw waaw defal mhm. maa ngi leen di nuyu waa bi ñëpp ba ñu dalee live ba tey. Mhm. bu mel nii tey dootu fi amati. macha allah gis nga fi ñu jàpp.